أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق summa allamahu mimma laa yaalam wasalaatu wasalaamu ala xayri albashari wa ashfar wa ash wa akmalihim xalqan wa ajmalihim saydi alwujudi wa alami shuhud saydina wa mawlana muhammadin alfatih alxaatim annaasir alhaadi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim ورضي الله عن صاحب الختم المحمدي رباني أبي الأباس مولانا الشيخ سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وعن سائر الخلفاء رضوان الله jullit yi ñuy seetaan ànd ak di ñu déglu ci gox yu fasantikoo yi ci àddina bi yépp ci góor ak ci jigéen ci mag ak ci ndaw fu fi waay mën a toll ànd ak di ñu seetaan booleek di ñu déglu ñu ngi lay nuyu ci nuyoo bi gën a tedd ci lislaam mu di bi ma jiital muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen sant di leen gërëm ci teewlu bi ak bàyyi xel gi ni ngeen ñuy teewloo lañ leen di teewloo ni ngeen ñuy bàyyee xel lañ leen di bàyyee xel ni ngeen ñuy ñaanale it noonu lañ leen di ñaanale te soxla nañ seeni ñaan yal na yàlla boole defar ñu tawfiq fi dunya wal axirati may ñu mucc ak muccule wér ak wérle ak wërsëg yu yaato yaato yaato yaatu ba kenn ku ne li nga bëgg ci diine ji ak tarixa bi tarixa boo mën a nekk ak ngor yàlla may la nga sàmm ko jamono bi baax na ci lool wërsëg ñun ñëpp nañ koy ñaan tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin di sant di gërëm alxaaji imam Moussa Gueye mi jóge fi léegi ci waxtaan wu tedd wi nga xam ni moom la def dem ñu ngi koy sant di ko gërëm ci yar bi teggin mi orma ji toujours damay wax ndaw yëpp bu ñu royee ci imam Moussa rek mucc waxkat yëpp ñuy wax ci rajo ak bu ak euh, réseaux sociaux yi bu royee ci moom rek duñ wax njaaxum kon imam musa ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ni mu ñu koy ñaanale fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin di ci teg oustaz Sidi Ahmed Mbay di nga xam ne moom it dimanche bu jot mu ñëw def wàllam mu ngi nii toog ak oustaz Camara Diaw di ko sant di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di sant technicien yu baax yi le Abdoul Aziz Seck jiite leen Abdoul Aziz Diop Thierno ak euh, Omar Gueye ak Omar Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey nag ñu ngi jéggulu bi Imam Moussa waxtaan nekkuma fi woon waaye maa sant maa gis ne yëf yi doxul ma téléphoné ne nañ defaraat loolu moom ma dalaat may bi may waxtaan mbiru technique la hmm. ah, nit sax day feebar kon nag ay machine moom waxe noppi te machine yi yée ngi fii yée nga somo mënoo ci dara ah, sax day feebar waxuma laag te machine yi yée nga somon faw lu mel nii day waaye ñu koy sante Abdoul Aziz bi nga xam ne nag moom lu ci mecc lu ci màjj yi jëm rek mu réglé ko ci saasi ñu ngi koy sant di ko gërëm yi mu di ko def en distance yii mu di ko def ci teewaay di sant suñu bopp di ko gërëm di alxaaji Malay Sall bii bu cheikh bu cheikh Ibrahima Sall bu sëriñ Xasan Dem bu cheikh al islam Maulana cheikh Seydi alxaaji Ibrahima Niass baay umam Abdullahi Niass ñu koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ak ñaanam ak jotaay bi mu ñuy wéttali mook suñu bopp benn boogul waaye xëy na mu ñëw ci kanam muy oustaz Serigne Souleymane Samb ak doomu ndeyam muy alxaaji imaam Mouhamad lamin Sakho ak seen doomu ndey di oustaz Saliwu Mbeng fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin di sant di gërëm Adja Kumba Thiam bi nga xam ne mooy sama taalibe benn taalibe boobu laa am man bari lewuma man dama néewle lool benn taalibe laa am ni Adja Kumba xanaa ñu yërëm ma waaye nag taalibe yombut de waaw Serigne Cheikh nee na boo ci amee ñett rek alku moo tax man ma am ci benn waaw sëriñ Cheikh nee na taalibe boo ci amee ñett rek alku moo tax man benn boobu rek doy na ñi ci des yëpp di ay wëllëre waaw ak mbokki taalibe moo gën a woyof waaw diw sama taalibe la kii man ma ko déggee sax damay tiit moo tax Kumba Caam bi nangul ma nekk sama taalibe rek waaye nag ma wax leen ne du sama taalibe daf may nax de taalibe sëñ Haadi la maamu kële toog sëñ Haadi moo ko jox tarixa Tijaan waaw moom ko am sens la waaw sëñ Haadi moo jox Adja Kumba Caam tariqa bi man sëriñu forcé laa rek maa ko forcé nekk sëriñam <laughs> maa ko forcé rek ba fexe ba nekk sëriñam rek mu bàyyi ko ci moom it waaw ah, sagalee ma benn gàmmu lay dem ci at mi muy sama gàmmu waaw ah, tubaarakallah Fass sax yaakaar naa géej na fa ah, kon nag eh, tey sëtam ngi nii toog sëtu sëñ Hadi Touré direct ndax yaayam soxna nakaati dimbali ma soxna Faat Touré sëtu Serigne Hadi Touré la Serigne Hadi Touré jur euh, baayam baayam di euh, naka jóob bàcci jóob nekkoon inakuwa ba léegi sax mu nga fa fa tabarakallahu moom mii di toog toog di aasi jóob di suñu doom ay ata a ngi nii gisuma ko ndax dafa jóge woon fii dem itali ñëw nag war a ñibbi tey lijjanti ba fexe ba gisuma ñu ngi koy sant di ko gërëm jox na ma yaayam léegi téléphone yaayam di ku baax di sëtu sëñ Hadi Touré bu baax a baax a baax ku sell ku yiw ak baayam bàcc jóg fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di sant di leen gërëm sëñ Hadi ku ko xam rek xam ko ci ñàkk caaxaan sëñ Hadi Touré ah Seydi bari la na de bari nay muqaddam waaye ku ci mel ni sëñ Hadi ak maam rawaan bariwut de waxuma ne amul de waaye bariwut de ñëpp baax nag waaye si ñaari baax na de maam rawaan baax na de waaw kon nag bu fi sëtam nekkee dañ koy sant kon Asi Diop ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla nga dem ak jàmm fekk fa jàmm bàyyi fi jàmm ñëwaat fekkaat fi jàmm ci sa barke maam Serigne Hadi Touré di sant nag ñi ci réew mi ñëpp soppe yi xarit yi am di jàmm yi ñi ñu bokkal réew mi di kilifa yi diine ji xam nga nit ñi dégguñu wolof léeg ma dégg ku naan ki ni kilifay diine yi diine yi amul benn diine am inna diina inda allahi l seen TV sax maa ngi leen di ñaan nañ ko rectifier émission Abdoulaye Lam boobu dañuy bind xawma ma diine yi nañ ko rectifier di bind diine ji ëttu diine ji boo ne ëttu diine yi day mel ni Tiwaawan dañoo am diine Touba am diine Njaasaan am diine laayeen am diine déedéet benn diine am inna diina inda allahi al islaam nañuy wax ëttu diine ji kilifaay diine ji kilifaay boo nee kilifaay mooy pluriel waaye boo nee diine ji nag muy singulier inna diina inda al islaam bu dee ci anglais mooy singula benn diine am yi ci des yëpp yàlla reconnaître ko ah niñ bàyyi caaxaan benn diine rek am inna diina inda allahi islam yàlla ne na benn diine la reconnaître mooy islam wa man na ghayra al islami diinan fa lan jamais au plus grand jamais yuqbalu la yàlla ne ko jàpp beneen diine bu dul islam lu ma la nangul maay nangu te maa lank waaw loolu kañ yomb na yàlla ne may nangu waaye maa lànk boo jàppul ci diine l'islam duma la nangul nee na te wa huwa fi laaxirati min alxaasirin nee na boo yegsee fii ci man àllaaxira di di di nga doon ku perte ndax doo fekk de résultat résultat zéro virgule zéro plus zéro multiplié par zéro divisé par zéro égal zéro noonu la diine rek a fi ne ñi ci des ñëpp nag dañ maslaa ak ñoom waaye léeg-léeg nga dégg ko naan diine kere ñun tooñuñu kenn kër goo fi dugg man sama doom maa ngi ko tuddee seydatu Seydatuna Mariama direct amul intermédiaire muy laal la Mariam boo demee sama kër Sacré Cœur fekk ko fa yéen yaayu yonent yàlla Isa laa ko tuddee direkt amul benn intermédiaire bàyyi sama ndey kër goo dugg fii di nga fa fekk am Isa ci kër jullit ñi wala am Mariama ñoom kañ ñoom problème waaye ñun amuñu ñoom est-ce que di nga dugg ci benn kër fekk fa Muhammad wala Aïcha wala Khadija kon ñun amuñu chrétiens yi problème non moo tax dialogue islamo chrétien amu fi fii islamo mbokkoo chrétien moo fi ne dialogue chrétien fii Sénégal amu fi buñ ñu ko naxee amu fi problème waaso amu fi ñu ngi sant yàlla moo tax ku ko fi bëgg a yëkkati yàlla rëq sa ndigg ak koo mën a doon nag gis nga li Serigne Cheikh waxoon dañ ci bàyyi xel def très attention gis nga réew mii ku ko bëgg a taal yaay tàkk ndax mag ñi dañ ko lawraataale ba pale dañ lawraataale suufu Sénégal kenn mënu ko yàq kenn mënu ko taal catastrophe yu ne jaar na fi yow taal àddina bi waaye bi mu ñëwee rek xabaa an mansuuran comme poussière buy naaw la moo tax billaahi ku fi guddal sikkim wala mbooloo topp la fi ba nga yaakaar ne mën nga taal Sénégal ñu di la jey dangay ngay da ngay jayaxu di rey sa bopp di dóor sa bopp ci miir bi Sénégal kenn mënu ko taal billaahi wal ku ko bëgg a taal yaay takk ak ku mën a doon nag buy sëriñ politicien ku mën a doon nga ne sa mooy taal Sénégal yaay tàkk Sénégal kenn mënu ko taal nañ def très attention te mag ñaa ngi fi ba tey demuñu fen ñu ngi fii di ñu xool jàmm rek ay am ku fi yëkkati ay di nga ko wéetoo nañu wootal jàmm ñuy wax ci télévision yi nañuy wax jàmm ñuy wax ci réseaux sociaux yi nañuy wax jàmm Serigne Cheikh nee na jàmm dañ koy wootal kenn mënta taal réew mi bon yëfi xew yi jàll yooyu gën a garaaw fuuf 88 fi la ma fekk moo gënoon a garaaw 93 yooyu yëpp di ay dat yoo xam ne ak ya ko jiitu 68 hmm? grève générale 68 yooyu yëpp moo gënoon a garaaw fuuf réew mii xale yu juddoogut bëgg ko taal wala mag ñu sàggan du fi amee ñun ñëpp nañ bàyyi xel suñu bopp te xam ne Sénégal suñu senegal la ñoo ko bokk koo fi rey rey nga mbokkam ñun ñëpp ay mbokk lañ yàlla defal nañu sutura nag fii Sénégal boo nee Jóob Njaay mooy kalam boo nee ay dara Kunta mooy kalam boo nee Fay Juuf mooy kalam boo nee Séeréer Tukkuloo kalam boo nee Tukkuloo Joolaa mooy kalam yooyu rek moo muccal na Sénégal duma ci sori foofu laa ci yem ndax événement bu ñëwee tamit am nañ ci wàll ñun suñ yoon newul ci li xew duma ci wax sama yoon nekku ci waaye sañ naa nag ne senegaal gii nañ ci wootal jàmm ndax ñu am jàmm jàmm dañu koy wootal ni ngay xëyee di utee xaalis noonu ngay xëyee di ut jàmm jàmm nag ku koy ut danga koy utee ci wax ak jëf wax luy tax jàmm am jëf luy tax jàmm am loolu mooy dëgg waaw ah. ñi jiite it nañ woyafal te xam ne jiite wuñ ay xaraki fasaki bëy ay nit lañ jiite te dañu fiy jóg keneen ñëw lu nguur neex neex gis naa nag fan yi ñu baree ngi waxtaan ci yoon ci yàlla Moussa man moom lu ma ne cocc rek gaa yi jël ko waaye du bokk de mu soobee yàlla du bokk de gis naa sax revue de presse yi sax gaa yi di sama mbokk mi sax ay dara maa ngi koy nuyu au sama xarit la sama rakk la ku baax la baayam ponkal la woon kilifa la woon ci ci ci tarixa tijaan ba pare di sëtu yonent bi ay dara bii ngay gis nii baayam min kibaari tariqati tijaaniya ñi amoon ijaaba ci tarixa bi baayam ci la bokk maa la ko wax frère am yëpp gisuma ci kundool c'est des multimilliardaires Cheikh Tidiane ba nekk gam bi bokk na ci autorité haute autorité yi gën a rëy ca bi magistrat la en même temps kër goo wëññi bànjul benn ñaar moo ko moom moo ko amee ay dara bi ñoo bokk benn baay léeg ma gis ñu koy sànni xeer nag ragaluma ko ginnaawam waaye li imam Moussa wax léegi dem nañ wattandiku sëtu yonent yi de man mii sax nañ ma wattandiku ndax ci laa bokk ah caaxaan baaxul nañ ma wattandiku de waaw nañ wattandiku sëtu yonent yi du ñu ay band mbaraj du ñu ay bàll puydu waaw jërëjëf kon dégg ngeen li imaam Moussa wax léegi ci sëtu yonent yi waaw kañ su ko defee nag ñu yem foofu mooy foofit bañ xaabaabal kon ñu ngi nuyu ñi ñu bokkal réew mi jiital ci suñu kilifaay diine ji teg ko ci loxol Cerno Bachiru Muntaxa Taaha Cheikh Alhaj Omar al Fuuti nuyu ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ci réew mi son excellence le président de la république monsieur Macky sàll ak soxnaam Hadja Mariam fay sàll ñu ngi leen di nuyu ak mbooleem le membre du gouvernement di nuyu tamit opposition bi bépp opposant wala ngay leader parti politique ñu ngi lay nuyu jox la sa wàccuwaay di nuyu société civile di nuyu ñi nga xam ne ñoom ak ñoom ñoo bokk réew mi waaye bokk ñu diine teg ko ci loxol cardinal euh, Sénégal sax amatul cardinal teg ko ci loxo évêque bi fi nekk Benjamin Ndiaye waaye jaarale ko ci loxo suñu soppe nag Jacques Seck la abbé Jacques Seck suñu xarit la abbé Jacques Seck suñu wëllare la nuyu waa église bi yëpp di leen ndokkeel nag ci seen koor gi ñoom itam ñu ngi ci seen ñeen fukki fan yu woor te dana ñëw ñu ngi ko doonnoo ca yoon ci yàlla Moussa mii mu wàcc ci yoon ci yàlla Isa ñu jël ko ñun nag bu yonent bi ñëwee seggal ñu ko ñu am trente jours ñun yooyu yëpp dinaa ci ñëw incha allah su ko defee li tax ñu tànn yonent yàlla Moussa pour waxtaan ci mooy fi jamono toll dinañ ci ñëw waaye di jaalewaat nag ñi nga xam ne dama juumoon ci bi may jaale ak fatte fàtte sëriñ Abdul Aziz si bu seydi Mouhamadul Moustapha si Jamil bu seydi Aboubacar si bu Cheikhul Xaaji malik ñu ngi koy jaale njabootu Cheikhul Xaaji Malick teg ko ci loxol xalifa bi seydi Aboubacar Mansour bi mu xewee woonaa sama xarit sama soppe sama doomu ndey di sëriñ Sidi Ahmed si Jamil sama mos jaale ko ko ndax mi ngi ma fekk ca France ma woo ko woo sëriñ Ahmad Daa si bu Seydi Jamil jaale ko ko ak maam Malick ak ak Malick si sëriñ Malick ak sëriñ Ahmad Daa ne leen ñu jottalil ma sama njaal xalifa bi bu Seydi Jamil di sëriñ Mansour si Jamil yebaloon naa fa it sama njaboot yëpp ñu dem jaale ji fa tabaarakallaahu kon ñu ngi koy jaale di waale tamit alaaji aatu jaañ bi ma koy jaale ba di ko ñaanal dama nen yàlla na ko yàlla wonale ak sëriñam cheikh al islam alaaji ibrahima ñas bàyyi foo loolu njuumte la rek waaye dara newu ci nag waaye senegal moo neexul a waxee alaaji aatu bi may wax wax naa digganteem ak sëñ abdul ahad digganteem sëñ saaliwu ba ci xalifa bii fi mujj eh, ne lim def ci yoonu murit kon xam nañ ne tiijaan murit la waaye njuumte day am léeg-léeg kon yal na ko yàlla wonaleeg cheikhul xadiim cheikh cheikh ahmad bamba yal na ko yàlla wonaleeg moom loolu laa ci jublu woon fa tabaarakallaahu ah ñu amati fi dëj yu bees yoo xam ne bi may ñëw léegi ñu ngi may tàgge góor gu baax di góor gi abdou salaam géy ca guddeem ma xam ko bu baax quatre vingt la demee la am nii bi muy gaañu tey ma wax lu doy waar nag njabootam ñëw na fii bi zawiya bi ubbee doomam bi ñuy wax Abib sëriñ Abib ñëw na fi ànd ak i taalibeem def fi ñaan góor gi at bi sëriñ Cheikh génnee àddina jour bi sëriñ Cheikh di génne àddina fekk ma tukki ñëw falaa jubali woon ànd ak ñenn ci sama waa kër ak le ministre Fatou Tambidou biñ demee góor gi góor gi gëmeewu ko li muy màggat màggat jàkka ja lay jullee waxtu yi juróom ñu ànd dem ci jàkka ja mu ne ma dama bëgg nga garantil ma ne sama jàkka ji jumaa ji dana yegg tali bi dana ñëw ndox dana ñëw muy forage lépp dana yegg nga garantil ma ko ma ne ko garantil naa la ko waaye bu yeggee nag du soreek sa dem yëpp nag fekkee na ko door a dem li may waxit ñépp xam nañu ko waaw ñëpp xam nañu ko ndax euh, ña ko fekkee woon na nga fa ay nit laa àndaloon muy ku ma fonk nag njabootam ñi ci ëpp ñëw nañ fi kon maa ngi leen koy jaal njaboot Baye Abdou Salam Guèye ponkalu tarixa bi la bokk nitu yàlla pire ku yàlla baaxal fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin njabootam yëpp ma xam leen nag waaye maa ngi koy teg ci loxol doomam bii ci kaw la di alaaji abib abib Guèye Mouhamadul Habib la tudd sax ñu ko koy jaale ak njaboot gi yëpp nag incha allah daañu fa dem jaale ji ko ci kàttanu yàlla bu Covid bi la wàññi ko rek incha allahu taala di jaale it di leen jaale tàggewaale leen alxaaji Moussa Thierno Moussa Ba bi ma daan tudd fii ci Parcelles Assainies ci wetu ci wetu cinéma unité 3 bi muy ku baax moom it di nitu yàlla bu mag bokkoon ci tarixa bi moom it 1925 la moog Serigne Cheikh ñoo maase moomit moo gaañu dimanche bi passé ñu rob ko altine ñu ngi koy jaale teg ko ci loxol taawam bi di xadi ajaa xadi ba mu teg ko ci loxo taawam bu góor muy xalifa Seydi Aboubacar Ba ah di wax ne rek mag ñaa ngi dem de ay mag ñaa ngi dem de waaw ñi baax a ngi dem de sëñ Souleymane Samb ñi baax a ngi dem de alaaji Malay ñi baax a ngi dem de yal yàlla dolli sutura nag waaw yal na yàlla dolli sutura waaye ñu ngi dem de ñu ngi dem de ñu ngi dem de xaw ma ne lu ci yàlla jublu yal yàlla ci jublu rek ma nan sax min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin minha aw misliha alam taalam anna allaha ala kulli shay'in qadir eh, di jaale ñëpp nag ñu fi wàññeeku mënuñu lim ñëpp waaye ñii ñu tudd rek yóbbaale nañ ñi ci des di sant nag di gërëm suñu photographe bi di Njaga Mbay tabaarakallaahu ak mbooleem ñi nga xam ne seq na ko ak liggéey ak ñoom muy Seydou nuuru Diop ak Yamin Diop ak ñëpp ñim ko seqal rek ñu ngi leen ndax xale yi organisé lañ ñu ngi leen ciy sant nag di leen encouragé te ngeen def très attention waaw ci ngeen di publier ndax loo xees publier rek mënatoo ko dabu waaw kon nag ñu dugg ci waxtaan wi bu waxtaan bi moo di yoon ci yàlla muusa alayhi salaatu wassalaam li tax ñu tànn ko moo di fi jamono toll gis nga bokk na ci secret bi tax yoon ci yàlla Moussa bari ci alquran saay-saay sim tombeeloon yàlla dafa xam ne yonent bi dana tombeek saay-saay yu ni toll mu nettali yonent bi yonent yàlla Moussa pour lu ca toll rek mu xam ne muusa dajoon na ko mhm. nahnu naqusu min anbaai rusulik maa nu sabbitu bi fuaadaka li nu sabbitu bihi fuaadaka yàlla ne ko yonent yi ma lay tuddal yépp dama ci bëgg sa xol dëgëree ci rek nga xam ne loo daj rek ñoom dajoon nañ ko waaw xam ne loo daj yow rasulullahi rek ñoom dajoon nañ ko ndax mu woyof ndax boo sibiroo yëg ne sibiru am na ci réew ngay bindi keneen di bindi day woyofal sa binni waaw looloo tax nag yon ci yàlla Muusa ku yàlla teral la moom it waxoon naa fi benn njuumte ne moo tabax miir bale ñuy wax grand la le grand koy waxe la grande muraille de Chine euh, mook wali yu xadir dama juum waaye am nañu lien tuuti nag zul xarnayni moo ko tabax dinaa ci ñëw buñ ca yeggee zul xarnayni boobu moo jiitu yoon ci yàlla Moussa tuuti waaye dañoo am lu ñu bokk moo tax yooyu yëpp dinañ ci ñëw mooy ca mujj ga waaye liñ ci jublu rek mooy fii jamono tolloog ñun ci mbon mbon yuy feeñ ci tibbantey tànk ci koñewante ci fiirewante ci yàq ci buur yu saay-saay ci feebar yoo xam ne mu ngi dab nit ñi kenn xamatut deegu gàtt deegu gaaw yooyu yëpp dafa amoon ci jamono yonent yàlla Moussa fa la fréquence bi ëppee woon yonent bi am na ci waaye bariwul ndax yonent bi dundam bariwul 63 ans la ci yonent yàlla Moussa dund na téeméeri at yu teg dinañ ci ñëw loolu moo tax fa tabaarakallaahu ñu jël yonent bi ñuy wax nabillahi Moussa alayhi salaam ñu njëkk ko ubbee te ji sant oustaz Sidi Ahmed recherche yi ma ko ci santoon li yàlla njëkk a wax ci alquran ne wazkur fil kitaabi Muusa yonent bi lay wax innahu kaana muxlasan wa kaana rasulan nabiyan yonent bi ne yàlla ne ko fàttalikul yonent yàlla Muusa maa ko yónni woon gis nga lu ko dal rek mu ne ko fàttalikul diw waskur fil kitaabi ibrahim waskur fil kitaabi idrisa waskur fil kitaabi ismail yooyu yëpp pour yonent bi lu yegsi rek mu xool ñooñu te roy leen ca nañ doxalee woon waaye moom nag bu leen royee moo leen di gën a rafet rafetle moo tax walakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llah wal yawmil axir am na fu mu wax fi Ibrahima kon ci yàlla Moussa yàlla ne suñu borom subhanahu wa taala wax yonent bi ne ko waskur fàttalikul ànd di tudd nag ma tuddal la ko fil kitaabi ci téere bi Moussa Moussa innahu liy mbir tey mbir innahu li wér te wóor mooy innahu li amul benn sikki sàkka mooy kaana nekk na moom ci yàlla muusa muxlasan di ku daan sellal sellal googu mu daan sellal nag yàlla ne ci laa sukkandiku ba wakaana nekk na rasulan di sama ndaw nabiyan ma déey ko nag mu nekk sama ndaw ma déey ko muy def ci sama waaw di dindi dañ koy jël bu gaaw nag ñu wax leen yoon ci yàlla Muusa nasab bi mu bokk li tax mu baax yoon ci yàlla Muusa Imraan a ko jur Imraan boobu Yashar a ko jur yashar qaahas qaahas ibnul awali awi boobu ibnu yaqub la alayhi salaam ba ngeen xam boroom xam-xam yi nag ak ñi yàlla tànn ci ña jiitu wax nañ ne yaqub boobu mooy yaqub al ula bu njëkk ba moom mu ngi amoon quatre-vingt-neuf ba mu génnee àddina ku ñuy wax awi moo ko moo denc moo ko denc naabita bintu awi ibnu yus ibnu yun ji jib ibnu yun jib kooku bi mu demee mu judd juddu na rir suun ak ku ñuy wax mazwi ak ku ñuy wax waqahas ak ku ñuy wax mardi topp ca nag ku ñuy wax qahas gannaaw ba nga xamee ne faatu na ci at moom barele ko woon ñeent fukki ak juróom benn la amoon ca la ko ku ñuy wax faahi denc bintu muni bintu mu biinu suñ ko toppee day gudd ndax bari na waaye ba ni mbokkee ak Haaruna bi ngeen xam mu mag yonent yàlla Muusa waaye nubuwa gi yàlla jox ko yonent yàlla Muusa yonent yàlla Muusa ñaan pour frère nekk yonent xam nga lii rek waxante yi am ci kër yi du am doomu bàyyi yi xew du am siisante gi du am yoon ci yàlla Moussa mooy mooy rakk waaye bi mu nekkee yonant dinaa wax li tax mu ñaan Haaruna nekk yonant comme moom ñoom ñëpp ba ci Qaaruun bi nga xam ne daf ko weddi ñaar ñu bokkul la Haaruna bi haa'i ak Qaaruuna bi qaafi Haaruna bi haa'i kooku mooy yonent qaaruuna bi xaafi du yonent waaye am na doomu ndey yonent yàlla Muusa la gëmoon ko mu jógi mu beew génn ci diine lislaam topp yoonu boppam ba yàlla alak ko moom it danañ ca ñëw yooyu nag événement yooyu <laughs> mu ngi moo moo ne xus tey ci suñ jamono bi waaw lii ma téye nii mooy nasabi yonent yàlla Muusa ba ca maam Aadama di yonti yàlla Haaruna ba ca maam Adama fa tabaarakallaahu muy nasab bu wér péng boo xam ni mooy geño ak meen kon yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wa salaam bokk na ci ulul azmi saar bi nga xam ne imaam Moussa Gueye mu ngi ko doon wax léegi subhaana alladi asri bi abdihi leylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi al aqsa alladi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiun basir lu ca topp lu ca topp ubbil sa téere sa portable lu ci topp dimbale ma bu leen ne umumu rek seetal saar wi yàlla dafa daaneel ci yonent bi rek dugg ci yonent yàlla Muusa loolu laa ci jublu ci saar boobu dafa daaneel ci yonent bi rek dugg ci yonent yàlla Moussa suratu Isra la dafa daaneel ci yonent bi rek dugg ci yonent yàlla Moussa loolu am na lu muy jàngale imaam Moussa junj na ci sànq waaye foofu duñ fi duggagum ndax dañuy wax juddu gi d'abord ak kañ la ko yàlla yónni ak avant yàlla di ko yónni événement yi xew ak bi ko yàlla yónnee événement yi xew ak dundam benke ñenke gi ak dundam service yi ko ci yàlla sant ak dundam yëwut yi mu tombel yëwut dëgër bopp yàlla wax ko ci alxuraan ne ñi gën a dëgër bopp ci al ci àddina gën a bon nu ñuy weddee mooy yëwut nee ne yéen jullit ñi yàllaay wax de wala tajidanna aqrabahum mawaddatan alquran lay wax yàlla ne bu ngeen di seet ñu leen sopp piir mooy chrétiens yi yéen jullit mu ne waaye bu ngeen di seet seen noon piir mooy yawut yi man waxuma ko wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina qaalu inna nasaara kon loolu mooy wax bi yoon ci yàlla Muusa nag ñu dugg ci moom balaa muy gane àddina dafa am buur bu saay-saay bu ñuy wax firawna bu fi nekk firawna mën na toog na le rek firawna di buur bu saay-saay yàlla dogal mu ñëw ci jamono boo xam ne daanaka ñi yilif àddina wërngal këpp tuuti konoon rek Firawna bokk ci wax nañ ne àddina wërngal këpp ñaara ko mos a yilif Zulxarnayni bii ci la bokk ak Namruz ah ak yoon ci yàlla Suleymaan astaxfirullah benn yi jullit benn yéefar gis nga yàlla ni mu déedéet Zulxarnayni sax du du yéefar yonent la ban am na yéefar ñeent waaw ñaari yéefar ak ñaari jullit ñeenti nit a mos a yëre fa àddina ñaar ñi jullit lañ ñaar ñi yéefar lañ ñaari jullit yi mooy zul qarnayni ak yoon ci yàlla Suleymaan ñaari ñaari ñaari yéefar yi mooy Namruuz ak Firawna am na ñu ne Firawna la am na ñuy wax ñeneen waaye lu lu ci mën am Firawna moom mbokk ci ndax yilifutoon Madyana Madiana boobu suwaay bu moo fa ne moo tax man d'accord ma ci wax boobu Firawna yilifoon na lu bari nag waaye yiliful àddina ndax Madiana ci biir àddina bi la bokk te Firawna yilifu ko woon yonent yàlla suwaay bu moo fa nekkoon moo tax bi yonent yàlla Muusa di génn Misra fu mu jëmoon ma ila Madiana axaahum Shuayban alxuraan moo leer de yii gaa yi di wax yëpp ay waxu caaxaan la alxuraan moo leer ila madiyana axaahum shuayban boobu yoon ci yàlla shuayb moo fa nekk mag firaw na fuuf ndax boobu am na ñetti téeméeri at trois cents ans boobu shuayb bu am na ko am ñetti téeméeri doom yu jigéen waaw ñetti téeméeri doom yu jigéen kon subhaana alladi asri bi abdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid al aqsa alladi barakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiun basir gis nga li ma la doon wax mooy ci topp wa aatayna muusa alkitaaba rek mooy ci topp lu tax yàlla indi rañaan rek teg ci muusa wa aatayna al muusa alkitaaba wa jaalnaahu hudan li bani israila allaa tattaxidu min duuni wakiilan zurriyatan zurriyata man xamal naa ma a noox innahu kaana abdan shakuran wa qadaynaa ila bani israila fi lkitaabi la tufsidunna fi l ardi marratayni wala taaluwunna uluwan kabiran yàlla du waxantu de yàlla du waxantu xam nga lu tax foofu dama ciy ne cocc rek bàyyi imam Moussa laal na ci ndax isra wal mi'raj la yàlla di wax foofu ne maa recevoir yonent bi kon foog mu indi ci yàlla Moussa ndax recevoir na yonent yàlla Moussa ci yàlla Moussa bi mu koy recevoir Moussa moo laaj ne ko dama bëgg nga recevoir ma kii nag laajut kii ci suuf fii ci àddina lañ ko recevoir mu yonent yàlla Moussa yonent bi ca malakut imaam Moussa li mu wax dëgg la de yonent bi weesuwul fala yem de yàlla ñim ci boppam am na réserve yoo xam ne kenn xamu ko ku dut moom moo tax ñii buñ añee ba suur di wax yu kenn xamul añ ba suur rek commencé di wax yu la neex ci yàlla mel ni yàlla moom benn affaire bu nekk fii la rek nu la neex bind mbaraj ko du noonu waaw du noonu de du noonu moo tax nag ñu balaa ñuy dugg ci gaam boobu ndax loolu yegg seeguñ ci yonent yàlla Muusa alayhi salaatu wa yàlla dafa dogal mu tombeeg buur bu ñuy wax firawna balaa yonent yàlla Muusa di juddu fekk na firawna nekk buur yilif lu bari nag ci àddina bi nguuram rëy wax nañ ne nguur gannaaw yonent yàlla gannaaw yonent Suleymaan firawna ci topp ci nguur Namruus topp ci waaye xoolal ni ko yàlla écrasé moom firawna ci yàlla Moussa balaa muy gane àddina firawna dafa am njaberkat mooy ay kaahin moom dafa amoon i njaberkat am ñu ne ñu ne am na ko njaberkat yooyu nag mu ne seetal leen ma ndax sama nguur gi c'est éternel xam nga éternel amul nguuru éternel yàlla rek a ko am seetkat yi seet ne ko nguuru éternel moom amut ña ko ko njëkk a wax ñëpp daf leen rey xam nga buur yi bëgguñu ko leen wax dëgg ñi ci ëpp mu jëlaat yeneen njaberkat yeneen kaahin ñu seetal ko ñoo ñu wàññi doos bi ne ko ah sa nguur de am na xale bu koy war a doon si ju nag góor lay doon boo yéexee mooy doon sa nguur gi mu ne leen luy pexe ñu ne ko dangay def ku juddu nga rey rek buy góor bàyyi fi jigéen ñi mu ne yéen ñi yéen seen xalaat baax na commencé ku juddu rek ju góor mu rey mënoo nëbb sa liir ba du ko gis ndax dafa am ay espion yoo xam ne ñu koy ay defal espionnage yu garaaw yii si am Amérique am ko firaw naa leen ko ëppale woon sama mbokk américain bële di door a yegg si nii waaw Alioune nijaayu Mod Ndaw la moom bokk na ci ñi may gën a suivre moo jotu si moom ne moom mi moo ma ko nettali nee na ma day dem sax di liggéey jël portable bi bokk ko di seetaan naa leen ma ne ko ah boobu ëpp na nag liggéeyal te bàyyi seetaan bi <laughs> tey mu ñëw moom itam am seet fekkee mu ne ko yaa ngi def xay yow firawna boo reyee góor ñi bañ jeex bu geer amee nga am soxla de kan mooy dem di geeri benn conseiller moo ko ko wax ne ko boo góor ñi bañ jeex bu guerre amee nooy def te sa population baa ngi commencé màggat sa armée baa ngi commencé màggat il faut nga xool ay relève mu ne wax ngeen dëgg tam loolu dëgg la ñu ne ko nooy def mu ne wool leen ma njaberkat yi ñu wooti njeberkat yi ñu ñëw ñu ne ko xam nga nooy def at mii di deux mille vingt et damay joxe misaal rek exemple at mii di deux mille vingt et un ku judd di góor reyal deux mille vingt deux ku juddu di góor nga bàyyi deux mille vingt trois ku juddu di góor nga rey deux mille vingt quatre ku juddu di ji góor nga bàyyi noonu la ko doon jiwaatlee mais xoolal xereñu yàlla at bi muy bàyyi rey ci la ci yàlla Haaruna juddu at bi muy rey ci la yonent yàlla Muusa juddu moo tax Moussa nekk yonent nekk ñekk yonent plaideel kii parce que conséquences yi moom ca la judd te yàlla bëggul banaana yàlla lu lu lu lu kenn mënte ne lii mënta am looloo ñor yàlla ndax fokk mu wone ne man maa man lépp moom yàlla loolu tax mu jiital mu yonent yàlla Moussa muy yonent xaaroon a mujj xaaroon ay mag waaye xaaroon na at mi yon at mi firaw na di tëbal ci la juddu moom duñ ko rey ndax moo ne at mi kenn du rey góor ñi at mi muy rey nag góor ñi ci la yonent yàlla Moussa judd moo tax yonent ci Moussa ak yonent yàlla Haruna un an lañ magante ay doomu ndey lañ seen ñaari ndey yee bokk ndey ak baay ak Xaaroona yaayu Xaaroona yaayu ci yàlla Moussa ak yaayu Haruna ñoo bokk ndey ak baay gis nga niñ jege moo tax mbokk daanaka amul njëriñ de am nañ waxin la nag aywa xaaroona taxu ñu jóg waaye ci bëgg bokk na ci sujet bi waaye moom bi muy judd du événement parce que boobu Firawna ku judd di góor dañ lay bàyyi kenn du la rey aywa léegi nag yoon ci yàlla Moussa judd na moment bi nga xam ne Firawna dafa ne benn liir bu góor bu mu fi des ndax wax nañ ko ne at moomu sax ci liir boobu ci lay judd njaberkat yi dañ ay de njaber moom du jóg ci àddina ila yawmil xiyaamati waaye du tax mu baax nag du tax mu baax de mukk biñ ko xoolee ne ko nag at mii sax lay judd at mii sax la ki doon donn ki lay donn at mii lay judd yusabbihuna abnaahum wa yastaxiyuna nisaahum wa fi zalikum balaaun min rabbikum xaafis la boole ci de kële ci sa gannaaw noonu jógee Amérique xaafisul Qur'an la macha allah tabaar moom kañ tëj leen seen kaamil yi ma di ko laaj comme ñëw na waaw mu la jógee waaye xaafisul Qur'an la fi nga koy gis noonu mokkal loo ay nit door dem Amérique ba léegi nii fëttut xam nga da mokkal sax fëtt waaye moom ba léegi fëttut baqara benn asi tabarkàlla dala koy tarit boole ci nag anglais bi tabar bu la làkkalee anglais nga xam ne yàlla buur na waaw man loolu laa bëgg nit da ngay am dangay am envi ci àddina am volonté am détermination waaw waaye ne yàcc yàccaaral ni sii di kunte rek di dàqi weñ rek fu la ngoon fekk jant ba sooyee la fa loolu mooy lan nit day am volonté yuzabbihuna mu ngay rey te daawul rey nii de rendi dañuy rendi liir bi ci kanamam wala mu yeble ñu rendi ko ñi ko rendi seede ko ñëw won ko ne ko rendi nañ ko wa yastahyuuna ñuy desal nisaahum seen jigéen ña wa fi zalikum nekk na ci loolu balaa un nattu min rabbikum bu jógee ci seen bor azimun bu mag nag xam nga nattu mooy lan mooy yàlla da lay natt ba xool foo toll ci moom loolooy nattu yàlla dalay natt pour nattal la su la nattee nag ba xam ne fii nga toll mu nattal la la nga tollool <laughs> ah, leer na ah, nattee ba xam ne fii nga toll mu nattal la nag la nga tollool ci ay ton nga yenu bu dee poti ndaa it <laughs> parce que foofu la sa pas-pas yem moo tax moo tax ku himmatul himmatul insaan qaahiratun alal akwaani loolu la Seydina Cheikh wax mu ne ittey doomu aadama weesu na not nag univers yëpp waaw itte rek moo am solo sa itte nag ak say recherche loo ci def rek bu mu doy waaw bu mu doy minal mahdi la yonent bi wax ilal lahdi nee na xam-xam moom yonent bi sallallahu nee na xam-xam moom mu ngi dooree fi nga nekkee ci laytaay ba fa ngay dem ci jaat nee na bu fi ñàkk jàng benn bis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin waaye nag wa muslimatin yonent bi saai sallam nee na talabul ilmi sàkku xam-xam faridatun farata ala kulli muslimin ci jullit boo mën a gis waaye nag wa rawatina wa boobu du ak de uh-uh. du waawu atif wa rawatina muslimatin bu jigéen ba nag bu góor xamee benn jigéen ñaar la war a xam loolu lay firi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljaahiliyati luule wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasula dem ba ca biir innama yuridu llahu li yuziba ankum rijza ahla albayti wa yutahhirakum tathiran li ma doon wax ñëwaan Firawna annoncé nañ ko ne liir bi judd na mu am problème bu rëy nag ban liir la ci liir yi gars yi commencé di yu góor yi di rendi rek di rendi rek di leen di rek di léeg-léeg sax ñu ñu ñu jox leen xibaar information ne masalan am na ku jël am doom bu góor ca Kédougou firaw na yónnee ne gaaw leen rey ko ci masalan ñu ne am na ku am doom bu góor ca Tambacounda mu ne gaaw leen rey fu ñu ko annoncé ne góor góor judd na fa rek mu ne gaaw leen rey moo am ko judd ci taatu këram te yëgu ko <laughs> yàlla xereñ am ko judd ci taatu këram te yëgu ko mu yaayoon ci yàlla Moussa mu jaaxle moom kenn ci kër gi ndax góor gi dem na muy matu moom kese te neex naa dégg xale yi rey seen doom yi taxul mu baax damay joxe exemple rek dañuy jur danañ biir ba wasin seen ndey ak seen bàyyi du ko xam dëgg la du dëgg da jékki-jékki rek ñu ne rey na doom ja loolu nga cay am police jàpp na ko ñaa fu mu biiree dem àddina bii la mën a am waxuma la ak nag ku yàlla ñoŋalal bopp moo tax imam Moussa Gueye bii dañ ciy waxtaan maak moom ndeysaan mu ne yaay yonent yàlla Moussa ñoom ñoom sëñ Souleymane Samb bii nga xam ne ci yooyu la ñuy dox mu xam ko lool nag ma sànniwaale ko ci xeer waaw wax nañ ne turu yaayu yoon ci yàlla Moussa rek mën nga ci def lu num tudd yu xaanii doog yu gaa yi indi nañ ko am na yu kabbi doog yu waaw yooyu yëpp am na moom kay cent et quelque non gaa yi génnee nañ ko ci umm Moussa lañ ko tuddee boo ko xamee tur wa pire boo ko xamee alal yomb la nga lekk léegi milliardaire xam tur wi rek laa wax de soxlawul si kër ndax yàlla barkeel tur wi jëmmi nga xam ko rek loo bëgg am ko moo tax tur wi jafe moo tax gars yi nag fu ne dàkk nañ ko fa ñii naan yu xaani yu ñii naan kii moo tax bu ñoom sëñ Souleymane Samb bi bu ñuy ñaan sirul muntawi di ko ca dugal ndeysaan waaw sirul muntawi waaw nu mu tàmbaleeti sax malikul qudusi sari il alimi tastamishan tastamishan barhatin barhatin barahiyan barahiyan barxuus barxuus yooyu yëpp tabarkàlla yëpp di di di di jéem a génne tur walla rek waaw muy sirru muntawi nga dem ba ca biir dam sa sun mas sa sun xam sun masi sun karimun barxaasun barxaasun barxuusun yooyu yëpp tabarkàlla nga xam ne gars yi lu dañ koy daj pour xam tur wi rek lu ne lu ne imam Moussa nee na Serigne Mansour bu Serigne Cheikh di taawu Serigne Cheikh di sama nijaay moog Serigne Moustapha yal na yàlla guddal seen fan teñ sut seen bàyyi fan te ëpp ko barke nag waaw sëñ Moustapha responsable moral sëñ Mansour mooy magam sëñ Mansour ñëpp xam nañ ne sama gàmmu gi confé bi muy nekk conférence moo ko daan présider moog Cheikh a Sall rahmatullah alayhi wa radiya anhu mu ne sëñ Mansour laaj sëriñ Cheikh ne ko waaw yaay yoon ci yàlla Moussa ummu Moussa tur woowu lan la mu ne ko Mansour ummu Moussa amut rabbu ummu Moussa moo fi nekk <laughs> xoolal wax boobu rek non sëriñ Cheikh du doomu aadama sëriñ Cheikh dafa bari xam-xam tabaarakallah yàlla jege ko nag ah parce que yàlla bu la jegewul yenn wax yi doo ko mën bàyyi imam Moussa mi xamoo ne noonu la ko yàlla jege woon alaaji Ousmane Gueye bàyyi Ousmane Gueye sama xarit la woon dama daan yoot fii rek dem seeti ko góor gu bari xam-xam gis na bu la yàlla jegee tontu da jege waaye bu la soree tontu du la yomb hmm? yàlla jegee tontu da jege ndax moo lay dee du doon wax yu nag min wara i xijaabin lay doon hmm. moo ko wax de man waxuma ko ci alxuraan ay Seydina Ali noonu la ko yàlla waxe ah kon mu ne ko om Muusa amut rabbu ummu Muusa moo am waaw ah, pour wan ko ne ko ummu Muusa existé wut ki moom ummu Muusa moo existé muy suñu borom subhanahu wa taala mu ne ko ummu Moussa amut boromu ummu muusa moo am maanaam xam nga wan na ko ne ummu Moussa am na bon man déggee naa ci wax bi ne ummu Moussa am na sëñ Cheikh da koo sëlëm rabbu ummu Moussa huwa ummu Moussa <laughs> rabbu ummu Moussa huwa ismu man noonu laa ko déggee huwa ismu wa huwa ismu ummu Moussa mu ngi mel ni nga ne masjidu rasul rek masjidu nabawi kaabatullahi baytullahi alxaram baytullahi alxaram yooyu yëpp baytu ba taxul ñuy wax waaye borom baytu ba tax ñuy wax màkk ay birig la rek mook birig yëpp birig lañ waaye yemuñu nag ndax birig bële yàllaa ko joxoñ te joxoñut birig yi ci des moo tax mu ne wa rabbil kaabati lu tax waxul wa kaabati yonent bi bu daan géñ wa rabbil kaabati lay wax maa ngi géñ ci borom néeg bii lu tax waxul ne maa ngi géñ ci néeg bi néeg bi kese kese taxul ñuy wax borom néeg bee tax ñuy wax moo tax Serigne Cheikh delloo ko ci ne ko ummu Moussa amut rabbu ummu Moussa moo am waaw waxu Serigne Cheikh neexul a dégg ndax boo ko déggul da ngay foog ne Serigne Cheikh dafa weddi ne Umu Moussa amul Serigne Cheikh ñeme naa weddi ne Umu Moussa amul te tey taalibe juddu ci kër taalibe xam luy Umu Moussa mu xam ko xam gu mat sëkk moom Serigne Cheikh ndax way juram mbokk na ci ñi ko xam kon kañ xam na ne Umu Moussa am na waaye dëgg dëgg nag Umu Moussa da nga koy dégager teg fële xam ne rabbu Umu Moussa moo fi nekk mooy def mooy dindi aywa yoon yonent yàlla Moussa ndax yooyu foog ñu lay ko mu leer ndax nit ñi fi mu ne nii dañ ko bëgg yiw sëñ Souleymane xam na ci dara ni ko ci gaa yi di sonale umu muusa loo ci xam waaw loo ci xam peut-être acca waaw rek am na de am na de billaahi tur wi rek boo ko xamee loo bëgg ci alal am ko waaw loo bëgg ci alal am ko multimilliardaire ngay nekk jëmmi tur wi soxla moom boo ko xamee soxla wut wérd moo tax mu neex loo ci nekk di wérdante ba tas xam ngi rek jëmmi xam nga ko rek loo soxla mu nekk ah ndax xam dara la su ma xamuloon sa numéro téléphone dinaa la woo waaye jëmmi xam bi ma ko xam saa yu ma soxla woo la su may composé rek mu ñëw ci yow direct ñaata numéro téléphone a nekk ci senegal benn bokkul ak moromam neex naa dégg léeg sax nga juum ne yaxya jóob mu ne du man de nga ne ko damaa juum baal ma àq ne karaj fekk benn chiffre rek nga juum dem ca yaxya te si oustaz sii di nga doon ut jeex na tur yàlla yi tamit léeg nga juum benn rek dugg ci réseau jàmbur mu fel sa gémmiñ foofu la wali yi du mën a nangoo li nga wérd parce que da nga génn ci sa jaune dugg ci jaune am mu xam sa fréquence jël li nga am ah. <laughs> yooyu sew-sew la waaw boo waaye ma daama ngay wér gu benn wali yi toog fële nangu ko mënta nekk bu ko nangoo rek danga dugg ci fréquence am mu xam sa réseau xam sa code bu xamee sa code nag jël sa jël sa compte jeex na bu demee ci gab bi rek génnee ko <laughs> <laughs> jeex na bi nga amee kotu gab noonu la wali yi amee kot booy dugg ci seen réseau rek ñu nangu li nga yor waaw awliyaa yëpp nag am na ñoo xam ne nag soxlawuñ sax sa réseau boo ñëwee toog buñ lay xool di xam sa kot te déggee naa ko ci TFM TFM laa ko déggee man émission boobu ñuy def gannaaw journal booy boobu di ko def Mansour ak euh, xale bu jigéen bi nu mu tuddati mu baal ma na fàtte naa tur bi ah? mbëri mbéri waaw kañ damay bañ tudd kale te du ko tudd moom mbéri ak Mansour man émission yëpp lay seetaan ñuy li ci net bi xamoo am na benn kii buñ génnee boo xam ne mën nga ñëw fii boo ko tàppee code yi ci amoo kaat yëpp da nga koy xam dugg ci code boobu utiliser wifi shérif te Chérif defoon na ko tam ba pare am na léegi boo ñëwee amoo amookaat fii ku fi am wifi rek boo tàppee code boobu da ngay xam kotu Chérif wala kotu Imam Lamine Diop wala kotu xalifa jàllo wala kotu kotu code bu la ci neex na nga dugg ca utiliser wifi am dem ñibbi maa dégg TFM booy bi démontré ko ba jeex takk ma ne ah, bii de baaxut moom waaw démontré ko wax nuñ koy defee yëpp gis nga man la ma ca jàngee mooy am na wali yoo xam ne boo sobee ba dem ziyaare ji leen te amoo ndigalu sa kilifa booy ne cuut booy naan coppet ñu jël li nga yor fekk décoté nañ la bu yàgg <coughs> nga ñibbeeg loxo neen boo amee kilifa rek sa kilifa mooy def abstention comme Amérique ni ñuy seen droit de veto boo bëggee jël mu ne la noo kii ci man la bokk rusé ma ko nag yow itam bul ëppal ah, nga ne ko waa baal ma kii foogoon naa ne du bokk ci yow yooyu yëpp ay sis boo Firawna laay dugg si moo tax yàlla def ñu ne ko doom ji juddu na ñim doon rey yëpp ci àll ba ndekki moom ki ko war a doon mu ngi juddu ci taatu këram te xamu ko problème am ñuy seet kan la war a doon yàlla def kiiraayam xam nañ ne ummu Moussa la yaay yonent yàlla Moussa la ñu jël benn rek jox ma benn ci tur yi rek xannatu waaye du xannatu de ci tur yi la bokk rek damay bañ ñu ne Chérif wax na tur wa xannatu xannatu ci tur yi la bokk yu kannatu am na xannatu am na yëpp am na waaye benn rek laa ciy jël ci yu bari yooyu muy xannatu moo gën a siiw ñu ne xannatoo war a jur xale bi firaw na yebal soldaar yi këram dañ njëkk a ñëw biñ ñëwee mu tiit dugal ko ci ron lal gi ñu ñëw ne ko dañ lay passer visite ñu ngi ànd ak sage-femme yu jigéen xam nga ku am doom dangay am mérite mu ngeeg mérite mu ngi ay régalam loolu yaay yonent bi rekk ci mucc aminatu bintu wax bin rekk ci mucc ak faatimatu bintu zahra ñaar ñooñu rekk ci mucc ci jur doom te gisoo deret ñaari jigéen ko am ci àddina bi fatimatu zahra bintu rasulullahi sallallahu alayhi wa ak aminatu bintu wax bin aminatu bi muy jur yonent bi sallallahu alayhi jaarul sax fi nit ñi di jaar ci jumba la jaar génn anesthésie bu gaaw la ko Jibril defal dal di ko defal césarienne bu gaaw ci jumbax bi la jaar génn Jibril raayaat ko opération bi mel na meloon mel ni kenn mësu ko xotti Fatima jagle la yàlla ko ko jagle loon day am doom léegi julli tàkkusaan mu ngi nii di nodd am léegi tàkkusaan doom julli timis loolu la ko yàlla defaloon aywa ñu ne sage-femme yi dugal leen ko ci pantre bi ngeen xool ndax am na mérite ñu dugal ko visite visite duñ gis dara buñ demaatee njaberkat yi dóor dóor dóor ne ko mu nga fa de jur na doom bii nag bi ñuy ñaareel yoon bi ñu ñëw dégg xale bi di ngeew ngeew ñu ñëw xool xool boobu yàlla moo def kiiraay gisuñu xale bi wa awxa ila ummi muusa door a ñëw an afdiihi fa ida xifti alayhi fa alqihi fa fi lyammi fa alqihi fi lyammi yaaxuzu aduwun lii wa aduwun la wa alqaytu alayka mahabatan minni ko foofu sax secret la bu ñu gaa yi di noobee wa alxaytu alayka mahabbatan minni <laughs> gaa yi noob noob bu garaaw moo nekk foofu dalay topp comme xaj noob bu garaaw moo nekk wa alxaytu alayka mahabbatan minni ñoom sëñ Souleymane yii dañ koy def yooyu rek la liggéey ñii <laughs> dinaa ci ñëw yàlla moo neex waaw yàlla dafa ne ak oustaz bii wa alqaytu alayka mahabbatan minni waaw mm, ubbi ubbi miim yi waaw yaatal miim yi waaw def ca yang cey def mara day taali àddina tukki ñëpp am jàmm waaw bu àddina tukkee rek ñëpp am jàmm <laughs> tabaarkàlla tabaarkàlla ah waaw loolu la yàlla dogal aywa yàlla indi kiiraayam dégg nañ jooyi xale waaye gisuñu xale biñ demee rek am lu wax ak soxna si Hannatu ne ko ah c'est la deuxième fois bu amee une troisième fois nag di nga ñàkk liir bu amee troisième fois di nga ñàkk liir yàlla nag bu lay protéger tamit léeg dalay da bàyyi ak sa bopp de ne ko maa ngi lay protéger boobu bëtam bi yow it defal ndara nag waaye terewul yàlla dicté na ko li muy def ci kàddu gu muy dégg waaye gisul jëmm loolu la ñuy wax taxul mu nekk yonente de déedéet lim am la Maryama ibnu Imran amoon moom itam ibnatu Imran moom la amoon haatif mooy luy wax mën na nekk malaayika bu yàlla yebal mën na nekk yàlla ci jëmmi boppam mu segg wax ji moom yàlla ba nga mën cee jot ndax yàlla ay waxini waxin la yor nuñ demaat njaberkat yi dóor dóor ne mu nga fa deewut de mu nga fa kër xannatu firaw na ne c'est la troisième fois ngeen di dem bu ngeen fi indi wut liir ma rendil ko sama bopp may demal sama bopp xam nga kon garaaw na bii nag ñu fekk ko mu koy nampal ci bunti kër gi mu ngi tëj bunti kër gi ba caabi lawbe ko waaye toog nag di ko nampal biñ dóoree bunt bi rek fekk mu ngi teg ruy ruy xam nga ko wasin bees dangay bëgg ruy mu ngi teg cinam fas yéene araw di xaar cin li bax mu sotti arawam jigéen ñi xam nañ li may wax di xaar cin li bax pour mu sotti awa arawam mën a jax foofu la gaa yi sone fëgg mu yër ñuy ñoom gën a bari nañ ne woon war a palki palpe kër gi yëpp auditionné kër gi yëpp perquisition euh, ni ko perquisition kër gi yëpp war a réquisitionné yi ñu war a réquisitionné yëpp ndax dañoo bari lu xool xool nag affolé tiit ndax jigéen tiit te mu ngi yor doom ji mu dem ubbi cin la jël xale bi ne ko ci yulub dal di jëlaat cin li tëj ndax tiit cin lu fekk cin laa ngi baax mu jël liir bi mu yont yàlla Muusa ne ko yulub ci biir cin li jël kubéer gi tëj muy kubéer gi di baax bay dóor xam nga kubéer guy baax noonu bay dóor garde yi dugg si ñii ca néeg ya ñii ca wanag wa ñii ca fële moom mu ne ci ci ëtt bi di jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dama tiit lu lan laa def lan laa def ñu ne ko yow xam nga li nga def ana sa doom ji am ku ne seet leen cin li benn waay fekk ko fa rek tëgg ko pes ne ko dang ñoo yab cin naka la mën a baxee doom di cee bu ci doom nekkoon sax ñor nañ dem ñibbi <laughs> dang ñoo yab cin luy bax xanaa dang ñuy ñuy jaay ne yow yaa ñu gën a yeewu fekk mooy chef de chef d'état-major bi moo ko tëgg pes ne ko dang ñoo yab cin luy bax nu ci doom mën a nekkee bu ci doom nekkee it perte na ñor na xom nañ dem ñu dem biñ demee ba gisatu leen mu tëj buntu ba ba dëgër mu ubbi cin li gis yonent yàlla Moussa Cheikh baaraamu déy bi di namp meew di génn cin li di bax yàlla mën moo tax billaay lu la të bàyyeel ak yàlla lu la të rek bàyyil ak yàlla lu la jafe bàyyil ak yàlla mu sepp moom it ba mu koy seppi lakkut defut dara ci barke yonent yàlla Muusa mu seppi ko ciyee ko di nàmpal ndekete am na ko desoon ci biir làqatu xam nga buur dafa saay-saay ndeke am na ko desoon ci biir làqatu te kooku monisé la mais yàlla affaire lay def bi mu ne ñu xeet gis ko muy nampal mu ne ko ah tey nga dee maa la gis lii moom seede la maa ko gis mu ne ko suturaal ma mu ne ko duma la suturaal daw utali na pour ndax Firawna dafa joxe woon xaalis comme ni États-Unis di def yàgg na fi de ku ma indil bopp benn la den ma jox la temps yàgg na fi de ah loolu lañ joxe woon comme kii ak ni xomay ni defoon ne ku ma indil boppi Salman Rushdie ma jox la temps yàgg na fi de Firawna noonu la defoon ak suraqata waa ji yàlla natt ko mu daw ba ca na bi mu demee ba na firawna na ne ko lan la mu bëgg a wax maa gis liir bi yàlla téye gémmiñ gi mu muuma ci saa si mënatul wax mu commencé naan bu mm, mm. bëggee wax yàlla tëj tëj gémmiñ gi Firawna ne jàpp leen ko ñu jàpp dóor ba nooy bu ñëwaatee ci kër gi mën a wax bu delluwaatee ci firaaw na bëgg a nettali yàlla téye gémmiñ gi mu def ko ba muy ñetti yoon mu ne lii nag naa ci màndu dal di ñëw ci soxna si xannatu ne ko kaay ñu def politique ma ak yow man man menuisier la fekk yàlla nee na ko soo jaaxlee ci xale bi daajal kees def ci ay laytaay tëmbalal ma ko ci géej gi dana teeree ji kër firaw na bi ngay ragal noon la ci man yàlla waaye noon la ci Muusaa mii waaye du tere nag dinaa ko musal wa alqaytu ma sànni alayka ci moom mahabbatan cofeel min nii bu jógee ci man yàlla ba ku ko gis bëgg ko aywa menuisier bi daaj kees gi ah waaw kay nu moom la menuisier bi tudd has xiir yi mu daaj kees gi ba mu ba yeggal xannatu jël kees gi def ci ay laytaay jël yoon ci yàlla Moussa tëral ci foon ko ci jë tàgg ko tàggoob sama doom ji dana dee am lu wax ak moom ne ko xanaa gëmoo yàlla fa awxa ilay yàlla wax ak moom ne ko maay wax ak yow nag yow fi taa naka fi taabuuti aliyu fax si déet fi taabuuti moo jiitu ah ndax si fi fi taabuuti waaw kañ mu ne ko nanga ko dugal ci kees gi fa yi nga sànni ko fil yammi ci géej gi dana tëmb di tëmb yaxusu dana teeree ji ca kër dana koy nangu aduwun noon boo xam ne lii ci man yàlla sama noon la muy firawna waa waadu wun noonu la lahu ñeel ko na préparé noonam la yàlla ko tere teel a préparé yoon ci yàlla Musaa ci jigéen ni mu bëggee doom xool ko ci suñ jigéen yi rek kenn du laal seen doom yi kenn boo leen bëggee jot rek laalal xale yi nga war a daaj sa doom daaj kees dugal ko ci sànni ko ci géej yàlla ne ko xanaa du waxu maak yow inna raaduhu ilayki wa jaa'iluhu min al mursalina may wax ak man man yàlla may wax ak yow hannatu dugal ko ci kees gi sànni ko ci géej gi dinaa ko delloo si ci yow te dinaa ko def ab yonant ci la door a takk fit wi nag dugal ci kees gi menuisier bi daajal ko ko ba mu jàppale ko ñu dem ba ca géej ga mu ne ko yan tam sànni ko ci géej gi taxaw nag di ko xool ci jigéen ak doomam xam nga tiis na tiis na lool mu di ko xool kees gi di tëmb mu di ko xool kees gi di tëmb mu di ko xool kees gi di tëmb ba gisatu ko mu ñibbi këram ak i jooyam ñàkk naa sama doom xam nga lu yàlla wax ak yow yow yow tamit ji moom mu ngi noonu rek nit day <laughs> léeg-léeg mu gëm ah léeg-léeg mu mu am jaaxle du ñàkk gëm sax waaye jaaxle wax nañ ne ñiine ñaari fan la am ñii ne ñetti fan la kees gi teer ñii ne 24 heures bu ci mën a am rek yëpp wér na xissa la waaye daal teer na kër na ca place ba place place yéen ñëpp xam ngeen ko comme place amookaat bi wala yu yu mel noonu le mooy ci tefes guñ defar ba mu rafet fi Firawna daan feexloo yàlla nattu ko nag keroog mu toog ca piliyaanam ca gàngonooyam jàkkaarloog géej gi féexlu kees gi di tëmb di ñëw yàlla mën affaire kees gi di tëmb di ñëw moom ci boppam moo ko gisal boppam ne lëlelaan la ñu ne ko kees la mu ne bàyyi leen ba mu yegsi bi kees gi yegsee di tëmb di tëmb di tëmb di tëmb ba ca benn garab gu dend ak càmmoñu na wax nañ ne bu doon ca ndey joral sax mën naa tuub soxna see toogee ci ndeyjoor kees gi tëmbee càmmoñ na toog ñoom ñaar ñuy waxtaan jàkkaarloog géej garde yi nekk ci gannaaw mu ne garde yi dem leen indil ma fa kees gi koste woon ci taati garab gim mu koste mooy turi yonent yàlla Muusa muu mooy maaw kuy tëmb ci ndox saa mooy sajaru ku teer si ci garab muy muu saa xamuñ tur wi ñu ne Moussa ku tëmb ci ndox ba teer ci garab lii mooy tur yoon ci yàlla Moussa de ci suraniya walla ci hébreu làkku hébreu mu mooy maa u ci arab saa mooy sajaratu ci arab ñu boole ko ñoom ñaar ñuy Moussa waaw kañ firaw na ne leen kees ñu indi ko mu ne dajji leen ñu dajji waaye bi ko yonent yàlla na bi ko yonent yàlla muusaa xoolee rek dafa reculer ndax leer gi jógee ci bëti yonent yàlla Muusa yi na àttanu ko mu reculer ne soxna si jëlal demal jël ñemewut soxna si ne ñokket muy asiyatu asiyatu ne ñokket dal di jàpp yonent yàlla Moussa ak ñaari loxo yëkkati taf ci dënnam ne ko qurrata aynan lii ka am nañ sedd bët maag yow mu ne ko xanaa yow loolu tax tuubut mu ne ko na am nañu sedd bët maag yow ndax ati ay ati at ñu ngi sëy maag yow amuñu doom kii ñëw di tëmb ci géej gi kenn xamut fu mu jógee yàlla ñu ko sédde muy suñu doom kon nañ ko def suñu doom am na nañu seddu bët muy doom ji mu ne ko xanaa yow jëlal waaye man baax na buur la am na am na lu ko yàlla di dënk aha boobu xam na ne ba mu ko xoolee la xam ne kii moo koy doon waaye amul preuve yu ko won ne kii la mu xalam ca xol ba ne ah kii sax balaa fee màgg xëy na ma sàkkal ko pexe waaye asiyatu di ko vigilante di surveiller xale bi de pre et de loin nanguwul ku ko laal léeg-léeg firaw na romb ko rek ne ko sa kii bu màggee du baax de mu ne ko bàyyil kii gone la xamul kii léegi nag bi mu amee vingt quatre heures ci seen loxo di jooy liir bu war a namp asiyetu génnee weenam jox ko moom mosul am doom kon du am soow foofu la wuteeg yonent bi de yonent bi jànq yi nga xam ne mooy suñu xam góor suñ mosaan su mosaan sax seen ween sax soow génn rasulullahi waaw kooku du moromu kenn mënuñ ko nampal kenn mënu ko nampal kuñ woo ci pale bi muy jigéen buñ ko joxee rek mu dummóoyu kuñ woo ci jigéen ci pale bi pour nga nampal ko rek buñ ko joxee mu dummóoyu ndekete boobu sëram moom Hannatu mu ngi ci biir pale bi di liggéey yëg na ne sëram moom am na doom waaye daf koy nëbb mu ne mbaa du kii mbaa du kii biñ toogee nag deuxième jour nampul ba ci troisième jour bi ñu ne xale bi day dee foofu nag yàlla roof Firawna tuuti ne mu ne nañ dugg ci dëkk bi ku xam ku neex soow kuy nampal ndaw sa door a jóg sëru yonent yàlla sëru yaay yonent yàlla Moussa bi dal di jóg ne hal adullukum ala ahli baytin yakfuluhu <laughs> du noonu la ali waaw kañ moom xaafis la moo tax ndax duma leen tegtal benn néeg bu ci jublu mu ngi ci jublu benn kër goo xam ne ñu neex soow lañ yaakaar naa ñooñu buñ ñëwee danañ ko mën a nampal firaw ne ko demal indi ko mu dem na sëram xamoo ma xamuma la de bul jéem a xam ne xam naa la firaw na dalay lay rey rey ma waaye Moussa moo nekk ca pale ba mu ne ko Moussa mu ne ko sa mos wa alqaytu alayka mahabbatan minni li kay taqarra aynuha yàlla ne ndax say rongoñ fer ah yàlla ne ma say rongoñ fer aywa ñu jël ko yóbbu te moo ko jur di ah fa radatnaahu ila ummihi kay taqarra aynuha lu ca tege aliir wala tahzan hmm? waaw kañ waaw wala taxaafi wala taxdan ñu jël ko yóbbu naka la yegg si ba génnee weenam rek yonent yàlla musaa alew tewu ko ween wi nampa nampa nampa namp ba mu jël beneen bi jox ko mu nampa nampa nampa namp ba suur firaw na ne ko toog fi ñu di la fay nga di ko nampal <laughs> xoolal li toog fii ñu di la fay nga di ko nampal ñu jël ko kom bon te xamuñ ne mooy yaayam gis nga nit ñi moo tax ñu yor nguur nañ def attention nguurug yàlla rek moo dul jeex bari na ko koo bëgg éliminé fekk yàllaa ngi denc ci keneen koo xam ne moo lay wuutu na wax nañ ne rey na ñaari junniy liir ak juróomi téeméer liir rey na ko waaye ki war a juddu juddu na doon na ko te mënu ci dara léegi nag ndaw si muy xannatu mu ngi ci pale bi di nampal léeg mu ne may leen ma ma ñibbi semaine bi ñaari fan waaye bu ñibbee benn fan lay def ñëwaat ndax ñëwent doom waaye loolu stratégie la muy nampal ñu di ko fay muy nampal ñu di ko fay <clears throat> damay tënk foofu nag am na fa ay kéemtaan yu fa jote feeñ kudul xannatu ak asiyatu gisu ko léeg-léeg asiyatu woo ko ne ko xam nga xam na gis nga kii du gone du gone neen de yemal ci nampal ko te bul feeñal ne yaa ko jur man xam naa ne yaa ko jur ndax asiyatu ci nitu yàlla yu jigéen ñi la bokkoon foofu dinaa ci ñëw bu ma duggee ci firawna ci nitu yàlla yu jigéen ñi ci la bokkoon moo tax yàlla tudd ko ci alquran hmm? wa mraata firawna iz qaalat rabbi bni lii indaka baytan fi ljannati wa najjini min firawna wa amalihi wa najjini min alqawmi aldalimin asiyatoo ah, tax muy wax <coughs> muy soxnaay firawna yonent bi toog ca medinatul munawwara ne yàlla may na ma ñaar ñii sama soxna lañuy doon ëllëg ci àjjana ñu ne ko kan mu ne maryama bi jur yonent yàlla sama soxna lay doon ëllëg kon yonent bi bàyyi isa la doonte isa ko jiitu ñu ne ko akkan mu ne asiyatu bi firawna doon denc ci sama soxna yi lañuy doon ëllëg ci àjjana kenn du rasulullah mu di ko nampal di ko nampal ba yonent yàlla Moussa tollu ci raam mu feral ko ndax bañ ñu xam ne moo ko jur bi tolloo ci raam la ko feral yoon yonent yàlla Moussa nekk ci pale ba di lekk lekk nu nit ku normal lekk nu liir asiyatu yor ko nag moo tax firaw na nga dégg mu ne ko alam nu rabbika fii naa walidan foofu ngay déggee wax bi alam nu rabbika fii naa xanaa du yar bi nga juddoo fii di ngone su tuuti wa faalta faalataka allati faalta wa anta min al kafirina pour sous mu ne ko ana faaltuha izan wa ana min ad ay waay alquran waay alxuraan dara du moom maa ngi ñëw maa ngi ñëw de foofu rekk fi tolloo ci raam jóg daanu raam jóg daanu wax bii may wax nag am nañu ko dàq waaye xisa lépp ngay indi ni Seydi Hadji def kii wax na lii kii wax na lii kii wax na lii boo gisee ma di ko indi boo demee ci xaasiyatu saawi ala tafsiril nii daf ko indi mais wérut te bari ñu koy firee ci réew mii nag ma di leen wan ne wax boobu wérut moo tax ma di ko indi waaye mënoon naa koo tëb ndax loo xam ne ku ko wax ci sa baay nga jóg xeex buñ ko waxee ci baay ku tol ni ab yonent war ngaa rey sa bopp yow dama ne loo xam ne buñ ko waxee sa baay nga futteeku xeex buñ ko waxee ab yonent noo war a def jaay sa bakkan te boo demee ca tafsirul xaasiyatu saawi ala tafsiril jalaalayni lii ma wax nii la ko indee waaye dafa juum sama sëriñ ko dajjati Cheikh Seydi Ahmad Tijaani al Sharif al Fatimi moo ko dajjati teg ko fu wér nag te dinaa ko indi xam na waxtu wi jot na daanaka tey dañu am panne technique du tere rek fi ñu war a arrêté la ñuy arrêté ba bii di ñëw incha allah 17 heures rek yàlla def aywa bi mu tolloo ci xaal yooyu moom yoon ci yàlla muusa ci raamantu ci jóg taxaw léeg mu jóg daanu comme xale ni muy def rek waaye màggub yónnent ak màggu nit normal du benn yónnent buy màgg yàlla da koy màggaaleeg nubuwaam na muy toll ndax nubu yooyu tolloowuñ ulul azmi mina rusuli seen degré nubuwa bokkul ak ñi nga xam ne mursal kese lañ mursal yi nabi mursal yi ak nabi yi seen seen seen seen degré roox ak seen degré nubuwa bokkul yàlla bari le degré yi bokkuñ comme yonent yàlla Moussa yonent lay doon te ci ulul azmi yi lay bokk yàlla teel ko préparé muy ko am kàttan bu taxawee rek nga xam ne kii dana doon dara ëllëg Firawna fi muy jéemee gannaaw njaberkat yi wax nañ ko ne ko kii moo lay doon am na soupçon soupçonné na ne kii la waaye foog mu ut ay preuve lii may wax nag moom laa la wax ne asi xaasiyatu saawi ala tafsiril jalaalayn ni da ko indi waay wérul ci ngay déggee ñu ne dafa indi bekk suukar teg du dégg ngeen ko bétaay indi xalu safara teg yoon ci yàlla Moussa di raam jëm ci bekku suukar bi Jibril fël loxoom mu jël xalu safara wi sex ñu ne moo taxoon mu dotom du dëgg yoon ci yàlla Moussa dotamut yàlla du yónni benn yónnent muy am laago rawatina làmmiñam fi war a waxee nit ñi mais est-ce que loolu yenn na maana yàlla du yónni benn yónnent muy am laago laago rawatina bu làmmiñ kon nu muy waxee ñi ko yàlla yónni mënul nekk ñu ne moo taxoon mu jël euh, Haaruna du dëgg yooyu yëpp dinaa ci ñëw te pourtant yooyu yëpp tafsir yee ko indi mais dara du ci dëgg wérul yooyu la ñuy wax israiliyaat yawut yi dañ bari xam-xam am yuñ am xisa yuñ sërxal ci biir alquran te ñi doon def yëguñu ko suñ mag ñu baax ñii nag ñoo ko seppi sànni ca xaj indi la wér nag la wérit dinaa ko indi incha allah taala ndax ku fi jëlee lii war fee indi lii man nan sax min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin minha aw misliha alam taalam anna allaha ala kulli shay'in qadir bu ma ko dajjate it dinaa indi lu ma fi teg waaye li ma wax wér na wala wérul yàlla dina yónni ab yonant muy am du yónni benn yonant muy am laago mukk ab yonant ñu baal ma jàngale laa ci jublu waaye du gaaf ab yonant du lafañ ab yonent du silmaxa ab yonent du gaana yiy wàññi cër ak waxukaay yépp ak kattan ab yonent du ci bokk ci ngay dégg ñu dem ba ca kaan ci eh, yàlla yaxya kaana sayidan wa xasuuran boo demee ci xaasiyatu saawi ala tafsiril ni am na ñuy wax ne maa deytaale na leen topp ñoom ña ko wax ñu ne nekkuloon góor du dëgg tafsirkat yi fii ci Sénégal dañ koy wax moo tax Serigne Habib Sy bu Seydul Xaaji Malick di rakko Seydul Xaaji Abdul Aziz baax bu weeru koor teruwaan mu ne weeru fenkat yi teru na xam nga lu mu ci jublu mooy tafsirkat yi mu ne ñuy firi ci jàkke ñi ci ëpp dañuy fen ndax li ñuy teg ci dara yonent yi te jaaduwut ab yonent mu toll noonu nga ne yoom la woon fokk ma wax ko mu leer parce que firi dañ koy wax xam nga noo koy firi wakaana nekkoon na moom nu ma yaxya kaana nekkoon na sayyidan di sang wa xasuuran di ku fegu lu tax nga jël xasuur di ko fiiree yoom ah mu ngi mel ni e, e, inna haza axi lahu tisun wa tisuna naaja wa li naajatun waxida fa qaala akfilni fiha waadani fi lxitaabi qaala laqad zalamaka fi suali naajatika ila niajihi wa inna kasiran min alxulataai la yabgi baaduhum ala baadin illa alladina waaw kañ yooyu yëpp ay israiliyaat la Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi toj ko nag firi ko ne dara du ci dëgg yonti bi Firawna defee loolu teg bekki suukar ci waxin teg xalu safara yoon ci yàlla Moussa xam na ne lii suukar la lii safara la mu raam jëm ci xal bekku suukar bi Jibril fel loxoom mu jël xalu safara wi sex waaw ma jox leen exemple ki mucc ci cin cin cin luñ ko sóob muy baax ka ko musal ci loolu musu mënu ko musal ci bekk bekk benn xalu safara waaye il faut dire la vérité toi aussi sois sois sérieux caaxaan baaxul ki musal kiñ kiñ sóob ci cin luy baax mënta musal ki benn xalu safara ñu ne xal woowu mu seex moo taxoon làmmiñ bi dotom c'est faux du dëgg amut seex na xal waaye dara dalu ko firaw na xaqataay ne wala bi ah? mu ne alaaji bu saaxu ba ci àggee mu ne ku naan loo xam ne waxa ko naan mu ne fa mu nar a jëmi ji wax a ko fay yóbbu mu ne mu ne yàlla eh, dogal nag nga taawloo taawu muuma sa yaakaar tas alaaji bu saaxo moo tax kuy jottali fokk sa làmmiñ leer bokk na ci li yàlla garantil ab yonent fasaxatu lisaan leeruk làmmiñ parce que ñi ngay toog di wax ak ñoom pour ñu gëm la boo leen mënta convaincre ci làmmiñ bu leer lu la yàlla di yónnee xaaj ma lay xanaa yow te te tu es un professeur, n'est-ce pas Tu enseignes, mais tu enseignes bien devant les élèves, n'est-ce pas tu es, tu, es un, tu es, un, enseignant, mais tu enseignes bien parce que tu es éloquent. Prophète, faut que mu éloquent. yaakaar naa nguur gi sax bu ñuy tànn enseignant duñ jël ku ku ku mënta jàngale <laughs> ñu baal ma waa waaye yaakaar naa ko danañ la jël jeex na waaw waaw waaw waaw mu ngoog mu ne mu ne biñ daan def école normal boo at mee dem bu fekkee da nga dotom dañ lay renvoyer formé waat la wala ngay dër dañ lay formé waat wala ñu yóbbu la ci yeneen section xanaa léegi lañ xanaa léegi lañ banaliser njàngale rek kum neex dem jàngale mais jàngale noob noob la koy def jàngale ak nubuwa ñooy ñoo ak risaala ñoo yem parce que da ngay tasaare xam-xam moo tax ab yonent la làmmiñam day leer nañ li ñëpp tële daf koy mën ci leeral ak jotal wa ma ala rasuli illal balaaxul mubiin ah waaw ngeen di dafa dotam yéen ñi ko wax laa wax dina leen topp wa ma ala rasuli illa al balaaxul mubiin yàlla ne amul benn yónnantu bu may yónni lu dul la muy jotal dafay leer naññ naññ naññ ni bëccëg wala mu raw bëccëg ñu ne yónni yàlla Moussa dafa dafa dotam du dëgg c'est faux amut aywa ñu continuer pour une minute ba samedi ak jàmm léegi lekk na xal wi dara dalu ko firaw na xaqataay ni xool innocent bi maa ngi doon foog ni moom may doon waaye ki xàmmeewul xal ak suukar nañ ko bàyyi fii daal derut rey <laughs> yàlla buy def politique lu ne lay def ki xàmmeewul xal mu ne bu doon jël bekk suukar bi ma rey ko ak lu ko asiye bëgg-bëgg bu jëloon bekk suukar bi ma rey ko waaye comme jël na xal wi nag il innocent kii xamul dara kii du doon dara ëllëg naa ko bàyyi ci pale bi sax kii daal dootuma ko toppatoo dootuma ko faale ne firaw na ne ne asiyatu jëlal jëlal mu jël yóbbu asiyatu dugg ci néeg bi aayoo neen ko bambaane bambaane bambaane aayoo neen ne ci seen suuraaniye yooyu mu jékki-jékki yonent yàlla Moussa ree reewu xale yi ni xale yii di reewee wax ko ci suuraaniye ne ko maag yow yàlla ñu bokk bëgg moo tax mu ne wa alqayta alayka mahabbatan minni maag yow yàlla ñu bokk bëgg waaye bu bu firawna yëg bu kenn yëg maag yow te boobu xal liir la firawna fëgg néeg bi dégg mu Asiya di wax mu ne ko koy waxal mu ne ko damay woy boobu yoon ci yàlla Muusaa la doon waxal mu ne ko damay woy mu ne ko indi Moussa ma ma ma ma fab ko boobu nga dégg ah, kii amet ay dara di nettali mu fab ko toog ci trône bi te trône bi lépp or la wax nañ ne diisaay bi mat na cinq tonnes mu toog garde yi wër ko mu téye ko di nax yonent yàlla Moussa di fo ci sikkim bi di fo ci sikkim bi xam nga xale rek bu gisee sikkim di ci fo duma ma joxe sikkimu kenn ndax bugguma kenn ci ñun loolu dal ñu ndax man sax ko ba ma watee sama bos téye ci sikkim bi di fo di fo firaw na naan pourtant xale bi il est beau ci ni ngeen koy waxee yéen il est beau il est charmant il charmant nangam nangam di kii rek yoon ci yàlla Moussa jékki-jékki rek téye xëcc sikkim bi rek xëcc rek mu ngelawal piip yàlla sonorisé ko nag pale bi yëpp di ko dégg yàlla dafa mën affaire waaw yàlla dafa mën affaire yàlla sonorisé ko nag pale bi yëpp fu garde fu garde yàlla fu garde nekk ci pale bi rek dégg na pii <laughs> yàlla kenn du moom nekk ci palais bi ak lu sa néeg ruqi ruqi dégg nga pii bu Firawna bi fekk assiette ngi toog rek mu sànni ko ko waaw ne ko kii li may naqari ji ëllëg yëpp ci moom lay jóge <laughs> juddoogul di ma toroxal dama koy rey assiette xam nga jigéen lim man ci jëkkëram wax ak moom ni ko kii xamul dara gone la liir la wax a wax ba mu ne ko bu amatee rek ma rey ko waaw ne ko laa taqtuluhu waaw kañ dimbale ma nii la nii laa ko bëggee del wax laa taqtuluuhu firawna bu ko rey looloo indi baat boobu waaw maa ngi ñëw laa taqtuluuhu firawna dafa dogu woon ne daf koy rey ndax toroxal bi mu ko toroxal ci kanami estafam eh, gouvernement bi yëpp toog ministre yëpp toog mu mel ni conseil des ministres ñëpp toog garde yëpp ab xale toroxal la bu tuuti bu am deux ans mu ne da koy rey ndax kii gàcce bi mu ko teg da koy rey asiyatu ne ko bu ko rey laa taqtuluuhu bu ko rey asa xëy na an yanfaana mu jëriñ ñu ëllëg aw na taxisahu wala boog ñu jàpp ko wala dan muy suñu doom bu ko rey mu ne wahum fekk laa yashuruna yëguñ ne kii mooy toroxal firawna mu ne ko baax na jëlal xanaa yow yan faa naa ji yow waaye kii maa jëriñ kii kañ ba may jëriñ it toroxal na ma te demagul fen jëlal xanaa yow xanaa yow ji rek moo génne firaw ña ci diine ah asietu jël doomam continuer yar mos boobu ci yàlla musaa deux ans ñaari at la am continuer yar waaye léeg-léeg mu jub ko rek mu ne ko téyel gone gii nangootu ko téye nag <laughs> dama xam ne ki nga uuf mu toll ci raam ak jàng dox ngelawal loola ba pale bi yëpp dégg ko kooku bu mënee dox tukkal sa àddina moo tax bu bu Moussa cukar cukaree ba jub si ko mu ne ko téel xale bi keroog la ko gëj a téye mosu ko téyeeti nag fu mu ko gisee ci pale bi ne ko yóbbul xale bi parce que xam na ne kii ci toroxal ko la jëm daay te yoon ci yàlla Moussa fu mu ko jekk woon rek dina ko ko def te du ci mën dara nag ndax yàlla aar na ko ba noppi moo tax ku xam yàlla fokk nga wattandiku surtout ku yor nguur walla nga bëgg nguur wala nga nekk ci nguur fokk nga bàyyi yàlla xel boo ko deful rek di nga tromper sa bopp tromper sa peuple xoolal Firawna aywa ñu dem yoon ci yàlla Moussa nekkee noonu ci pale bi ba bés foofu laa koy tëjee ñu ba samedi ba bés na am ndaje mu mag ndaje bu mag boo xam ne ëpp na sax conseil de ministre ñépp daje ministre yeeg gouverneur yeeg préfet yeeg ñëpp ñim am ñëpp mu dajale leen di joxe ay instruction benn tey pour ñu am vigilance ci doom yi juddu fekk asiyetoo ngi toog teg ci yàlla Moussa ci wetam fi yoon fi bi Firawna di waxee ba toll ci loolu ci yàlla Moussa def benn geste xam nga bu ñëpp toogee lu yëngu rek ci buur danga koy xam bi mu defee geste rek na xool ne asiyatu koo kan la mu ne ko Moussa mu ne ko génnal ak moom génnal ak moom parce que xam na fi mu jëm ndax bi muy wax xam na ni ne na day fen te dafa fas yéene tontu li muy nekk nekk gone asiyatu jël muusa yóbbu biñ demee ba ci néeg bi Moussa wax ak moom ne ko su ci delluwaatoon ma tontu ko su ci delluwaatoon ma tontu ko laa rabbun si waa rabbu rahman mu ne ko amul benn buur bu dul borom yërmande ji kooku rek ay buur mu ne ko du buur asiyatu nag mujj tiit ne moom ni sama kii fu ma jëm moom Moussa tontu ko ne ko li may wax ak yow ci biir néeg bi duma ko wax ci biti mu commencé nag di wax ak asiyatu ci biir néeg bu génnee mel ni ku mënta wax ba def ay at ci biir pale bi ci biir palais bi dinaa ci ñëw waxtaan bi wax leen ñaata at la def ci biir pale bi door a génn te bi mu génnee taxul mu am jàmm ndax na def ko def résidence surveillée kër gu nekk ñëpp a koy surveiller lu muy wax lu muy def fu muy dugg fu muy génn ñan koy seet si ñan lay seeti mu def ko résidence surveillée boole ko ay agents secrets yoo xam ne fu yonent yàlla Moussa jëm ñu ngi ko topp ba pare famille bi yonent yàlla Moussa bokk dañu leen doon xeeb ñoom la ñuy wax xibti yu du noonu la Aliou xibti yu famille xibti yu bi mu bokkoon dañ leen daan xeeb maanaam dañ leen suufee loon parce que amuñu woon dara c'est des pauvres gis nga yàlla looy xeeb ci lay tànnee mu bëgg moom looy réyal mu màbb ko yàlla looy xeeb mu tànn ca lam bëgg muy tànneef te mboolem yonent yépp nag seen askan yi dañ leen doon xeeb ci matériel laa wax de waaye du ci juddu nag juddu ba moom day set wecc ay noble la doon waaye duñ am dara buñ añee duñ reer buñ reeree duñ ndekki seen yére yi mën nañ ko sol at duñ ko summi benn yére lañuy am wala di ko awante ci yàlla yooyu lay génnee ay yonent ak i waliyu suñ wali yi ngay gis sax de seen baay yi <laughs> mel luñ woon noonu ci am am de ak seen yaay yi mel luñ woon ci am am waaye ñoom nag ba seen baay yi fàggoo loolu biñ ñëwee lañ am la seen bàyyi am motoon ci seen barke baay yi ah? yàlla ko wax ci alxuraan wallazina amanu wa tabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim zurriyatihim waaye nag wa maa alatnaahum min shay min amalihim min shay min shay yàlla ne bàyyi yu njëkk ya ak maam yu njëkk ya muy anbiya u yeeg mursal ya seen sët yi topp seen njeexit danaa leen jël aj leen ca seen baay yaag ca seen maam ya ca yonent ya te du yàq ci jëfi yonent ya dara te du yàq ci seen jëf yi dara nga xam ne dañuy toll fañ toll woon waaye duñ doon ñoom nag waaw dañuy toll fañ toll woon waaye duñ doon ñoom xam nga noo koy déggee président au Sénégal sous-estimé ko nag mooy suñ président de la République waaye lu ma ko bëgg-bëgg est-ce que yem naag bu France mais président président rek la di président de la république Macky Sall président de la république Emmanuel Macron waaye président de la république Joe Biden est-ce que yem naag Macron voilà wa faddalnaa ba'dahum ala ba'din darajatin wa rafa'naa fawqa ba'd wa rafa'naa ba'dahum fawqa ba'din darajatin waaye nag li yabluwakum yàlla dama ko def rek ngir nattu leen de ki ma jox daraja ndax dina ko wan nit ñi ki ma suufeel ndax dina ko metti ki ma jox daraja ndax dina won nit ñi ne maa ko jox daraja di nde ko ci seen kaw di leen jéem a not ki ma suufeelit maa ngi koy seet ba xam ndax dina ko métti wala déet rafiu darajaati zul ars yulqi ruuxa man yasha rafiu darajaat zul arsh waaw gis nga barki rasulullahi alquran naka ne rafiu darajaati zul arsh ah, nee na man borom aras maa yëkkati daraja yi kon yal nañu yàlla yëkkatil suñuy daraja rek loolay wax ji waaw yal nañu yàlla yëkkatil suñuy daraja min a darajati l ula allati laa darajata fawqaha fi diini wa dunya wal axirati ma annabiina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihina wa xasuna ulaika rafiqan dalika alfadlu min allah wa naxnu taxta liwaai wa naxnu taxta liwaai alhamdi mutamassikuuna biha yal nañu ko yàlla defal aaliyatan xafaafatan wa nahnu mutamassikuuna biha yal nañu ko yàlla defal bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ci barke yonent bu tedd bu màgg bi nga xam ne min al ulil azmi min ulil azmi min ar rusuli mu yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam kon bokk yi ñu bokk teg foofu suñu baaraam desam rek jàmm bañ del siwaat ñu continuer xissa bi wax ni màggee ci pale bi ak kañ la génn pale bi bi mu génnee palais bi résidence surveillée yi ñu ko def ak yiñ ko kole yàgg na fi nguur day vigilant ah nguur loolay métier moom itam xool ki ko war a donn mu di ko surveiller de près et de loin ah, waaw yàgg na fi du fi jóg waaw ah, ca Firawna ba tey lu jiitu na sax ba tey du fi jóg du fi jóg ilal abad waaw ah terewul yàlla lu mu bëgg dana ko def yoon ci yàlla Moussa bi yàlla bëggee mu nekk yonent nekk na yonent toroxal na firawna bëccëg continué ak nubuwaam continué ak yonantam waaye terewul yàlla di génneewaat yeneen obstacle ci kanamam di génneewaat yeneen ni buur ci kanamam mu di leen def face ñu di ko def face loolooy tax équilibre am waaw waaw mooy tax équilibre am su amul équilibre du am toujours y a le pouvoir et yàllaa ko wax ci alquran waaw hmm? wa kullu shay'in indahu bi miqdaar indahu ji nga bàyyi wa kullu shay'in indahu bi miqdaar ñu ne ko lu tax mu ne aalimul gaybi wa shahaada kabirul mutaal mu ne wa kullu shay'in loo gis mbir mu mën a doon indahu fi man yàlla bi miqdaar am na pesé ku kaay dañ koy pesé ba mu yem dara du ëpp moromam ñu ne ko lu tax mu ne aalimul bi maa xam li fàddu te kenn xamu ko wa shahaada maa xam li teew te ngeen ciy jéem a xam te xamu ndax loo xam tey suba doo xam la ca kanam recherche bu ñu def ba am lu génn am na lu ko gën a fort lu nekk ca kanam la preuve iPhone bu génn sëñ Souleymane am na ko 8 5 10 11 12 yëpp 1 iPhone yi ay recherche la rek buñ génnee rek ñu ngay ñu ngay seet ba ca kanam ilaa yawmil xiyaamati télévision yi smart tv moo am léegi bu njëkk amutoon léegi smart tv yi mën nga ci def lu ne wala de sa télévision smart tv boo ko amee mën nga ci def lu ne waaw lu nekk ngi ci waaw lu nekk ngi ci noonu ñuy defee ay recherche xoolal weer wi américain yi dem ah pa planète march bii ñu dem bu yàggut day tàccu ah njëkkuñ faa dem xamoo njëkkuñ fa dem waaye niñ fa demee dafa gaaw demin woowu mosul am demin woowu mosul am tekkiwul ne kenn mosul gaa yaa ngi fa daan dem mais def daan yéex ay deux ans un an six mois lañ daan def un an deux ans trois ans lañ daan def pour la ñuy yebal yegg fa bii deful six mois yegg tibb ca suuf sa envoyé leen ba yaa ngay jënd ay logement ba fi may waxee yow nii am na ñaari astrono yu dem touriste touristique laa wax de astrono touristique laa wax de touristique nga xam ne mu ngi mel ni touriste bu jógee France ñëw war a seeti lagrose léegi am na touriste bu la neexee benn milliardaire américain moo ko créé visé touriste bu la neexee nga fay xaalis ñu yóbbu la planète Mars nga visité ko ñëwaat ci deux mois maa ko seetaan benn te jeune milliardaire la xale bu tuuti la dañ la koy loué boo amee xaalis wala moom mu may la nga dem mais par deux personnes la ngeen dem visiter ñëwaat touristique visite touristique def sa tourisme ñëw yooyu yëpp amuloon technologie tax mu am wa ma nurihim min ayatin illa akbara minha yàlla ne lu ma la woon rek lu ci lu ko gën a ponkal nga ca kanam di la xaar foofu la àddina toll kon nag bu àddina tolloo ci dox dangay dox ànd ak sa àddina la Serigne Cheikh Tidiane si al Maktoum waxoon ni niru sa bàyyi niru sa jamonoo ko gën ne waaye boo niroo sa baay niroo sa jamono nag wàcc nga waaye boo fi niru niru sa baay bàyyi sa jamono dangay torox de ah sa baay ay eh, eh, caaye perkal la xamoon man man suñ paa yëpp ay perkal lañ eh, ak ak nuñ koy waxeeti sëru rabal yi ak cawali padam njaxeen yooyu la ñu xamoon léegi boo ko solee ñu rey la mbasin yu rafet yi nekk fi ngay toroxal sa bopp xul man xarama zinatallahi allati axrajat li ibaadihi qul hiya lilladina amanu fi lxayaati dunia waaye xaalisatan yowma alqiyaama nga nekk fi di dàqi weñ yàlla ne ko la sant dàqi weñ sañ seel kulu washrabu waaye nag wala tusrifu lu tax innahu la yuhibu almusrifin in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu